jërëjëf mbokk yi ñu amaan mbégte tey ñu teew fii ca arène nationale yaakaar naa ne leen indi leen affiche bi nga xamante bi nii promoteur yi ko bëggoon bëri na muy Gamou Gueye numéro 2 bu lébu gi wala Gamou Gueye numéro de waaw léebu gi la nekk sa ñoom am a neex <laughs> foofu la nekk ñu koy boole xale bi nga xam ne nag mooy Yantia muy Tapha Mbeur mel ni mi ngeen xam le 13 la fi gëjoon digganteem ak Liss Ndiago fii ñu taxaw kii sama gauche fii la gëjoon digganteem ak Sokh mu nekk combat boo xamante bi nii combat amateur la woon ñoom ñaar ñëpp seeni combat yi ñu génn combat yu neex la woon yaaram production moo ñëw yaakaar naa ne nag xupp yar bu njëkk ba day dal ñu ngi koy ñaanal lii mu sumb nii yàlla na ko dugg ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin parce que tamit combat bi mu taxawal du combat bu ndaw combat bi mu taxawal amateurs yi bëggoon nañ ko combat bi mu taxawal promoteurs yi bëggoon nañ ko waaye yàlla ci loxo yaaram production la ko teg ba tax na tey ñu ngi fi war leen a présenté fii ci arène nationale bu Pikine ñoom ñaar yàgg-yàgg dina rombante fii kenn ku nekk yëkkati sengoor àll sa morom wala nga woon ko ko muy daw kon nag damay njëkk a nuyoo ak Tapha Mbeur Yantia maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar di la jox sa wàccuwaay waaw ginnaaw baatu onze billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ba nu sante yàlla julli ci nant bi di gërëm suñu ñaari waajur bu baax di gërëm presse bi yéen ñi fi toog ñëpp di gërëm promoteur bi nga xam te ne moom moo tëgg laa làmb ji quoi di nuyu sama adversaire di nuyu waa parcelles yëpp 1 vingt 26 di nuyu waa Grand Médine Grand Yoff Cambérène Cité Damel xam nga ba Cité Fadia bàyyi ma kenn di sant internet di nuy seetaan di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp quoi. Mhm. macha allah bokkandu damay jege njool mi maa lay siyaar baax yéen ñaar de yéen a tolloo. <laughs> salaamaaleykum ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di leen sant bu baax di sant samay entraîneur di sant mbari tëngeej yëpp. Mhm. waaw di sant mbëri tëngeej yëpp di ka jox doomu daangu quoi. Mhm. di sant samay entraîneur bu baax. Mhm. di sant promoteur bi tëgg komba bi bu baax. di sant sama papa bu baax di sant sama yaay bu baax. comprendre nga. di wax alhamdulilah quoi. lii yàgg naa kaa bëgg. aw ma ko woon. bi saison bi tijjee ba léegi. maa ngi maintien di xaar komba tey la ko suma borom jox. waa nga koy sant bu baax. waaw di ñaan yàlla ma si yàlla may ndam. tey la la ko suñu boroom jox ngay bëre xale boo xamante bi nii yaakaar naa ne làmb bëgg nañ muy am komba ndax façon de communication ñëpp dañ koy xaar ci moom en plus mu nekk xale boo xamante bi nii tamit ci biir làmb ay kawam moom kenn dootul la ko wax. door na caatu Kër masaar mu daanu door na Dangote mu daanu door na wulli mu daanu le 13 février liis Ndiago moo ci mujj. kum mas a bëreel ku nekk yóbbu na la ardo wala mu la nga root. waaw ah, mais dëgg la Mor Anta dégg naa li nga wax bu baax boo waxee moom ay dóoram mu daanu man da ngay wax man samay dóor mu daanu. demee ci moom laa lay wax li nga def yow. ah waaw ah, kon baax na moom champion la. Mhm. la kon mbër yi ma daan bëreel. Mhm. kii champion la mbër nga te kon mbër yi ma daan bëreel. Mhm. comprendre nga. mais damay ñaan suñu borom yàlla na ma may ndam. waaw li yàgg naa kaa bëgg. bi saison bi tijjee ba léegi maa ngi ut combat manuma am komba sunu borom tey la ma a jox ma di ko bu baax. di ko ñaan yàlla na ma si may ndam. si barka Muhammad damay. raak am lu mu laaj rek. incha allahu rabbi dinaa ko def. Mm. waaw nu ma mën a def ba am ndam incha allahu rabbi dinaa ko def. am na solo ngay bëre mbër moo xamante bi nii jëlee ko avancé dafa fés ñëpp ne Tapha def na erreur ndax ki mu jël moo ko man ngay bëre xale boo xamante bi nii yaakaar naa ne diggantee mag Ndoye Laxas digganteem ak Aykon digganteem ak Papa Ndoye diggante mag Tafaleer digganteem mag Modja bu Yoff digganteem mag Kolifay ku fi mas a jaarul fu nekk am na fu mu jaar ak yow te bala laa daan dalay yóbbu à l'usure mu def ak yow. waaw dañuy santaat yàlla rek di wax ni moom champion la mais nag champion champion lay bëreel. moom am na combat. waaw lu ma ko ci mënti wax mooy am na combat. moom combat bi sama bakkan laa si teg. Hmm. lu mu jar ma jënd ko. waaw dama koy yóbbante rek. gësëm hmm. gësëm wàcc guy mënul ci Dakar dara. gësëm gësëm wàcc. guy mënul ci daqaar dara. loolu day olof la. waaw combat bi combat bu ma fonk la. waaw <laughs> commencé na tàkk gaal. wàññi sa loxo nekk tàkk gaal si géej la ne. tàkk gaal waaw nii la toll. bu tafoosu gaal du dox. li mu commencé na de. noonu la demee jox ko mu wax. <laughs> loolu xam tàkk gaal ci géej lay nekk. en tout cas daal li mën a wax mooy am na combat. moom. waaw am na combat de. maa ngi ñëw gàmm maa ngi ñëw léegi mu neex. combat bu ma fonk la combat bu ma bëgg la te li ma ko wax léegi laa koy waxaat mooy lu mu jar ma jënd ka mm. waaw gàmm. wóor na yàlla. Mm. kii bu nekkuloon champion du ma bëree moom. xoolal caméra mm-hmm. mbër mii bu nekkuloon champion du ma bëree moom. Mm-hmm. champion champion lay bëreel. waaw comprendre nga. Mm. li ne champion moo tax ma bëree moom. Mm-hmm. comprendre nga. damay ñaan yàlla ma si yàlla may ndam. li yàgg naa kaa bëgg. nee na gësëm gësëm wàcc guy mënul ci xaw ma lan dara. mënul ci daqaar dara mënul ci daqaar dara bokkar dégg nga xam nga la la bëgg a wax. guy matul këriñ. guy matul këriñ. waaw la bëgg a wax guy. dijjana waaye matul këriñ. dijjana matul këriñ xam nga la la mën a lakka. Hmm. ah hmm. ab keccax. ab keccax waaw mooy aw jën nga tekka ni mooy loolu. bokkar kii li may wax ak li muy wax bokkul de. <laughs> déggu la moom mi ngi jaxase de. la de li ma koy wax mooy guy mënul ci Dakar dara bu demee na ko laajte. bu demee na ko laajte. ay guy matul këriñ geneen wax la. Eh. mais en tout cas daal komba bi waaw bu neex la bu amateur yëpp di xaar. Mm. bu àdduna yëpp di bëgg. Mm. champion la. moo tax ma bëgg a bëreeg moom. Mm-hmm. may champion mu bëgg a bëreeg man. Mm-hmm. mais combat bu ma soxla la di ñaan yàlla yàlla na ma yàlla may ndam lu rëy ci kawam. est-ce que combat bi du risque ci yow Tapha parce que amateurs yi ñu ci bëri. wala ñenn ci ñoom dan ne waroo jël combat bi parce que gàmm moo la man non risque amul man amul mbër fekk daanagoo ko mënoo ko moom moo la gën a xam loolu mbër fekk daanagoo ko mënoo ko. dëgg la de te man fi ma bëgg a yegg si làmb. Hmm. yaakaar naa ni su ma amee ku may sóoraale jarul may continuer waaw man dama bëgg waaw. Hmm. yegg fi mbër teg tànkam si làmb rek bëgg naa fa teg suma tànk. mais xam nga fi mu jaar ci làmb. daan naa mu jaar daan. moo tax ma jaar léegi ne la champion la. waaw xam nga nit da koy nangul. soo bëggee ñu nangul la. Gamou Gueye ndaanaan la. te combat am du yomb. xam nga loolu waaw te man bëgguma lu yomb. Bokar. Bokar acca bul ma seetaan. acca waaw acca dégg nga la wax. Ah. nee na ah, naa wax bëgg a yegg te la bëgg a daan ngir waaw dégg naa li mu wax li mu wax dama ko koy delloo rek. moom li mu doon champion. moo tax may bëree moom man li ma doon champion moo tax muy bëree man. comprendre nga moom nee na combat bi da ko jaral combat man la gën a jaral. man mi nga xamante ne suma combat bii passé dama dama mobiliser fii yëpp comprendre nga dugg si làmba ji bëréw ma daanu man maa ko gën a bëgg a combat bi waa Tëngéej dama leen amal bor ak ñi nga xamante ne ni dañ may supporter samay fans man dama leen amal bor te incha allah dama ko dama ñu ko bëgg a fay ni ko Modou Anta waxee sànq Gamou Gueye daan gis digganteem ak Pape Ndoye digganteem ak Ayton Aykon digganteem ak Modou Diabou da nga ñëw contre sox méconnaissable kenn xameewu la bëre woo puusoo paasoo nga ñëw nag jëlaat xale boo xamante ni tey ni mu la ko waxee moom nee na si yoon la. non kii mhm. ñii ñëpp ñoo maase. non ñii ñëpp ñoo maase. comprendre nga. njëkk a rek. njëkk a bëre la. Mhm. Mhm. sànq Anta wax na ma si ay wax. na ma heure bii naa fekk nga dem si gars yi affaire yooyu noonu. si espoir ma ne ko man. dama daan bëri ñetti komba si année bi. yàlla def ma daan bëri ñetti combat daan daan si année bi yàlla def ba ba instant bii nii manuma am benn combat comprendre nga loolu ñi ma ñi ma war a bëril ñooy bëri di dem comprendre nga. Hmm. ma am problème mu combat loolu moo tax. comprendre nga mais Tapha Mbeur damay ñaan yàlla ma yàlla may ndam si kawam li ma li ma war a lépp def lépp dinaa ka def. lay wax ci loolu. donc ko doon menacé di man menacé wu ma ko de dañ ma wax yan combat mooy kombaa yi neex ma ne leen sama combat ak Gamou Gueye combat bu neex la su bëggee combat bu neex day ñëw ñu bëre ma ragaluma li may wax de moo tax combat bi taxaw champion la moo tax ma ñaata mbër fi ne ci làmb su ma neexoon du ma damay jéggi xool leneen. mais bëgg combat bu neex bëgg combat boo xam ne ku ne day ñëw xool si nu muy demee moo tax ma ne leen manax diw komba la. loo yabee gàmmu gi la mu fa. parce que tey làmb ku ne da bëgg combat boo xam te ne boo ci jógee am tànk yoo seq. man dama bëgg a dimbali sama papa. wóor na yàlla man dama bëgg a dimbali sama papa barka alxuraan. billaahi fii gars yi àgg laa bëgg àgg dimbali sama papa wóor na yàlla. sa combat bi bi nga jóge ah, moo tax kenn xàmmeewu ma li ma war a def def naa ko waaw mais gis ngeen lamba ji ni mu deme lamba ji koroog noonu la waroon a mën a demee li ma waroon a def def naa ko andi naa ay supporter entraînement naa ba wow koŋ ma ñëw bëréew ma daanu ma santee yàlla comprendre nga xëy takk su may dàlla commencé dem entraînement comprendre nga sunu borom nag mu may soog a mayaat combat di nga ñaan mu may ma ndam. loo fas yéene woon nag ci ni mu la ko waxee xale la bu na ci yoon nee na fu mbër bëgg a egg. non Tapha Mbeur dina Tapha Mbeur dina bëre moom xam na ne dina bëre. Hmm. moom xam na ne day bëre. xeex bi allah dina bëre dina xeex. dina bëre dina xeex wana naar si guxum soow de. yaram moom dafa bëgg a dimbali papaam. dëgg la waaye man damaa bëgg a dimbali sama papa dimbali sama yaay. man sama yaay may taawam. waaw sama yaay maa sës. man rek maa taxaw bu dul man xale yi samay rek lañ. kon combat bi kon combat bi du yomb. combat bi mënta yomb. man maay taaw moom kon ñaari taaw ñooy. ñaari taaw man maay taaw. man sama maay taawam. billaahi man maay taaw man tamit man maay taaw si papa taaw si yaay. billaahi. dinaa ko wan ni combat man maa ko gën a bëgg. dafa. bu jegee ci bis ba promoteur bi woon taxawal. lan ngeen wax promoteur bi ci wàllu ndax gan gu bees la naka ngeen ko accueillir. Euh, moom man moom. mooy loolu. man man yàgg naa bëri di mobiliser mobilisation bi moom mooy loolu. day waaw incha allah waaw ñun. Hmm. mobilisation. waaw sant yàlla daal. Hmm. maa ngi ciy woo waa Parcelles yëpp. waa Grand Médine yëpp. waa Grand F yëpp. waa Cambérène baay ma kenn. Hmm. Tali Ndiaga mbay kon ñu xam nga maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn fépp foo xam ne doom parcelle nga. bala ngaa woote Bakary ah yaakaar naa ne moo fi nekkal promoteur wala moom mooy bi. ma moo teew. taxawal taxawal ni ko ni ko Modou Anta waxee rek taxawal nga lu jafe woon a taxawal waaye taxawal nga lu amateur yi bëggoon lu monde lamb bëggoon avant rek dañ lay féliciter ba pare nuyu la dalal la bàyyee nga nuyu ñu lay seetaan auzu billaahi mina sheytaani rajiim ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi sant suñuy waajur ah, di nuyu assistance bi fi nekk yëpp nuyu presse bi di nuyu ñaari champion yi di nuyu aussi équipe bi may àndal di liggéey aussi ku ci mel ni Lat Diop ak ñi ma àndal ñëpp quoi. Euh, ci donc euh, yaaram Art dafa nekk structure boo xam ne day yëngu ci wàllu événementiel euh, depuis des années. Mhm. mais pour une première fois muy doog a dugg Afrique plus particulièrement fii Sénégal parce que ay sénégalais ñoo ko doon ñoo ko ñoo ko yor quoi. donc dañuy yëngu ci événement lu ci ëpp ci culture la ñuy def culture sénégalo-gambienne quoi. donc bu ñu ñëwee Sénégal aussi gis làmb ji nu muy doxee. yoon la ñu ñu dugg si euh, ginnaaw bu ma côtoyé quelques promoteurs ñëw xool làmb nu mu demee mu ma gis ni carrément làmb ji soxla na ay promoteurs yoo xam ne ay ndaw lañu. surtout aussi di liggéey ak ay ndaw. donc loolu moo ñu dugal si ñaari champion yi. et puis may remercier aussi seen ñaari manager yi aussi ñu yombalal ñu liggéey bi bu baax a baax a baax franchement. comme que yéen si événementiel ngeen di liggéey ni ngeen ko waxee dugg si si làmb mu nekk euh, seen baptême de feu tey lan lañu war a xaar di tey côté innovation. non franchement xam leen ne événement la lamb lamb euh, en tant que tel événementiel la quoi donc bu ay acteur événementiel duggee ci làmb ngeen xam ne carrément a ngeen am événement événement d'une manière générale mm-hmm. surtout en matière de culture lamb culture la mais bëgg nañ ci dugal yeneen yoo xam ne euh, sénégalais bu fi ñëw daal di nga gis sa bopp di nga gis sa bopp incha allah loolu daal la bëgg quoi yaakaar naa am na solo kon moom Modou Anta est-ce bàyyi ñaari mbër yi woote rek bala nga wala li ngay tàggatoo après ñu bàyyi mbër yi woote euh, li may tàggatoo di remercier presse bi fi ñëw yëpp di remercier encore une fois ñaari manager yi ak ñaari mbër yi di remercier aussi équipe bi ma àndal yëpp Euh, di santaat bu baax samay ñaari waajur ak sunu waa kër ñëpp soutien bi gis naa ko bu baax a baax a baax euh, di tàllal loxo tamit monde lutte bi di leen tàllal loxo bu baax a baax xam leen ni gan bu bees tàkk a ñëw seen doom seen frère moo fi ñëw di leen tàllal loxo di woo ñëpp nag ci ci événement bi di ci woo ñëpp ñëpp partenaire sponsor médias yi ñu ngi leen di woo bu baax a baax a baax ci ci làmb ji incha allah. merci beaucoup à ñaari mbëri rek. ñu woote. waaw Bougar. waaw man maa leen di sant bu baax yéen yéen journaliste di sant samay entraîneur bu baax. ku si man nii papa yaa dama mag di ko ñaanal yàlla na yàlla wéral yaram bi. di sant Pape Formane. lay boxeur comprendre nga. di sant Matar Eze di sant Papa Cheikh Mbaye comprendre nga di sant Babou Kalle di sant Idi. comprendre nga di sant Bëlo. xam nga di sant mbëri tëngeej yëpp bàyyiwuma kenn di jël sant bi di ko jox doomu dàngu di sant ama neex tamit bu baax xamal la di sant Sococim di sant Youssou Ndour xam nga Ronaldo 10 000 problème mbëri tënkee jëpp ay biddéew ñoom ñëpp maa leen di sant comprendre nga. loo yóbbante Tapha. Tapha waaw di ñaan yàlla ma yàlla may ndam si kawam. waaw. <laughs> kii mënu maa yóbbante dara kii am na combat de. Ah. bu xar. waaw kii am na combat de. wër na yàlla man maa la gën xam ne am naa combat. waaw lu wér loolu koy doxee di ko man maa la gën a xam ne man am naa combat. Hmm. wër na yàlla tafa man tafa yow xam nga ne man masuma bëre am mbër moo xamante ne day naan nii ah nii non loolu dëgg la comprendre nga boo nekkoon mbër mu yaafus du ma bëre ak yow hmm? nekkoon mbër muy xalaat ah. bu nekkoon bu nekkoon nooy nekk mais tey kii champion la mais bëgg combat bi maanaam tey amateur bi ñëw xool si nu muy demee quoi lamb ji damaa bëgg ñu tëj ko parce que tey léegi làmb dafa favoriser waaw combat yi ndaw yi ñun dañu war a wane suñ bopp wane ni làmb léegi ñun dañ ci am cër quoi nekkul na tey combat yu mag yi rek la ñuy xaar stade bu tëju. bu fees mhm. loolu laa bëgg mu xam moo tax ma ne ko am nga combat. Mhm. li si war ku si nekk ñun nañ promoteur bu ñu gën a gore nañ jaay bés bi. ngeen jaay bés bi. entraînement ñëw ñu jaayante mooy li ma ko waxoon rek. Mhm. lu mu jar ma jënd ko moom na ko fexee jënd lu mu munti jar. loolu moo koy neexal. mbër wane la si jë la si jëxaat mbër di nga bëre di nga xeex. bu neexee yàlla incha allahu rabbi mbër man fi ma dëkk dama leen amal bor dama leen ko war a fay. sëñ bi da nga leen di amal comprendre nga. déggoo ma de nga leen di dencalaat beneen bor di nga leen gën a sonol parce xam lu ma la. Ah. combat bii nii lu mu jar ma jënd ko bi du ay waxu kase. Ah. du ay waxu kase de. mbër mbër yaa ngi ab si géej de. Mm-hmm. mbër man salum Saalum laa xam fa la ma laa mbaxalu Saloum ci tool bi ñu ah. buddi gerte. tool bi nga may woo. ñu buddi ji gerte. Ah, ci naaj bu tàng bi géej dafa sedd boo tàngee dangay ngay laal ndox. yu ma kànja ak bambara gi laay xëcce nii te du ma sol ay gants. déggoo ma de. géej nga xam déggoo ma de. kànja ak bambara gi laay xëcce nii mhm. te du ma sol ay gants nga ne ay tool. Gamou Gueye da de. ah yow xam nga ne du ma naxe. doom yaay combat bi du yomb de. billaay doom yaay lii yàgg naa ko fan yëpp maa si sànce barka alxuraanul karim. bi. ah ba ba tey di ko xaar. wooteel yàlla baax na. yàlla bëri na sutura ko waa. wooteel yàlla baax na nañu yàlla may talak fekkee rek. ba bis ba ko waa. wooteel di woo ñëpp nag. di woo waa parcelle 1 ba 26. Hmm. di leen wax combat bi seen combat la waa Grand Médine waa Cambérène. Hmm. nee naa la Nord Foire cité Damel ba cité Fadia. Hmm. di woo mbaru parcelle yëpp daam seen fa laay tàmbalee moom sama doom yaay la di woo Modou Lo si combat bi Papa Sow Franc Gora ma kenn ñoom euh, nu mu tëddati Garga Mbossé Zos képp kuy ndaanaan biir parcelle man maa ngi lay woo di woo mbëri ndaw yi di woo waa Inter 3 waa waa waa ASC e maa ngi woo ñëpp waa doole waa doole combat bi seen combat waa ECHO combat seen combat la. Mhm. ECHO ak fiñ bi samedi yàlla na yàlla may ndam waa ECHO ndam bu seddu guy. di woo nag waa ASC mhm. Dental intervent sama fief sama deret ah, bàyyi ma non sëñ bi combat bi dama la léegi dama bëgg ñu tëj stade bi. wool waa Tëngéej yëpp. Eh. wool waa Dangu. maa ngi oo waa Tëngéej yëpp bàyyi ma di oo waa Dangu xam nga <laughs> waa Bargny xam waa Thiawlène waa Mbaaw waa Caaray comprends nga bàyyiwuma kenn bu di oo mbëri tëngeej yëpp kii tol nii ba kii tol nii mbëri tëngeej yëpp maa ngi ñooy oo ñu ñëw jàpp si combat bi comprendre nga kii mu ngi oo kan mbëri tëngeej yëpp yaa ci gën a njool boo nee nii mbëri tëngeej yëpp dangoo ci sut te yaa ko sut man daa lay ma sol la mbër combat bi combat njool la ah nee naa la ndaama day yuqoolu ndaama day yuqoolu ndem bëgg naa jot ca la mbëri yooyu njoolu ku bëgg a jéggi dex nag jubóol ak mool ya lu ko mooy rek jaside danañ bëgg sa kiis njooli dañ mënante de mbër ñooli dañ mënante ñooli dañ mënante waaw waaw man njoolu Saalum Saalum laa de nee naa la mbaxalu Saalum laay lekk ci. bés man njoolu lébu laa. waaw luy lébu man ay Saalum Saalum. booy ñun parcelle lañ dëkk gënoo ñoo jege lébu yi de. waaw dëgg ginnaaw parcelle lañ dëkk. ñun tànku ne lañuy demee géej. waaw man fa laa dëkk. tëngeej nga dëkk. kon dama lay xamal li maa jege géej. man si xeer yi laa dëkk. waaw ci xeer yi ay ca bi daal du yomb di si woo ñëpp. di wax gaan waaw làmb ji lañ bëgg mu dàq bi. incha allah rabi incha allah yàlla ma yàlla may ndam bu